Heavy Mess.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 fees waa ji toroxaloon ko sa waay mujj naa fayu dóor ji ay jaasi ba mu nekk ci diggante dund ak dee problème yaa ji mu ngi wuyoo ci turu M ki mu def ñaaw teef bi door kay jaasi mu ngi wuyoo ci turu M Saw mbir mi nag nee ñu nii la demee M Jaw ak M Saw dañoo mësoon xeex xeex bu metti naka noonu M Saw dal di jàpp M Dia dal koy lapp lapp yàpp yu metti ci kanamu dëkkandoo yi toroxal ko depuis boobu nag ba léegi em jaa ci boppam mënu la woon naa su defet bi mu jëlee woon ci am saw ñoom ñaar ñu nekk ci koñ bi jàppe seen bopp xaj ak muus kenn du laal sa morom. mu daal je suis peur daal. ko noonu ba frère M Dia mi ñu toroxaloon di def mariage naka noonu ci la es saw mu toroxaloon M Dia décidé ne dina dem ci mariage boobu war a xewee ci kër M Dia mi mu toroxaloon ci bésu mariage bi M saw dal di ñëw wu bi ko M Dia gisee rek dal di koy attaqué nekkoon na génn seen kër. bi loolu amee m saw lànk ba tëdd ci naaj bi ne ko du génn ci kër gi m jaa daal di ne ko kër gi moom doo fi nekk génnal fii suñu kër la m saw gis na waa ji daf ko bëgg a toroxal ci kanamu nit ñi daal di ci position ne du génn kër gi waaye munoon ngaa génn rek jàmmam li nga bi loolu amee ci lañu jàppante jàppante bu metti daal di xeexaat xeex bu metti ni ñaate leen si la m jaa dem jëli jaasi fekk m saw fu mu nekk dal di koy gorote gorote ba mu nekk ci diggante dund ak dee gannaaw fukki at yooyu ko waa ji toroxaloon mu jaamu junaa fayu waaye nag fayu ba daa ëpp moo taxit yoon am na ci yoon ndax fi mu ne am jaa ñu ngi koy toppee li tubaab di wax tentative de meurtre ba soo wattuwul mën nañ ko denc jant bi giiru dundam eh, astafurlah eh, moo tax boo meree dee leen xool lool moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca dagana romb na doy waar daal moo benn dawalkatu moto ndax jigéen eh, bi def njombe lu rëy loolu nee ñu at yi mu ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett mu ñaar di dawalkatu moto bi ñu faat at mu ngi toll ci ñaar fukk ak ñaar li tax mu faat ko nag nee ñu em ñaar mi ñu faat di dawalkatu moto bi da doon génne ak xale bu jigéen bi waral coow li ñoom ñaar bi ñu génnee ba ci biir naka noonu seen diggante dal di am problème ñu dal di bàyyi bayante waaye bayante boobu ñu bayante yépp moom ba léegi dafa dese coppati xale bi. <laughs> ah dee waay bi loolu amee na ci la Emu Jaw di nappkat bi dal di aborder xale bu jigéen bi moom it mujj di génn moom bi ko Emu ñaa dawal ko ci moto bi yegee mbëggeel yëngu mu daldi di siisu dal di jàppanteeg Emu Jaw nappkat ba ñu jàppante xeex Emu Jaw jam ko paaka mu jaare fa ñàkk bakkanam <laughs> <laughs> ay waay waay waay waay waay mbëggeel fi mu toll nappkat bi ko faat mi ngi ci loxo yoon moo tax maa ne gi dal réew mi moo gën a garaaw korona laa wax la xew ca Tiwaawan pël romb na doy waar ab xale bu jigéen bu am 13 ans la ñetti waay violé ba mu jaare fa ëmb mais c'est honte xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo turu teegay ñetti ponkal yi ko violé nag kenn ki ab étudiant la di wuyoo turu enn gan ka topp di ab footballeur di wuyoo ci turu tembeng ñetteel ba ca topp nag sama mbokku rappeur la di wuyoo ci turu CMB def la xam wax xam ba tëdd xam wax la xam ba tëdd nelaw xam wax la xam ba tëdd nelaw ay waay waay ngaa yem ci micro bi ñoom ñooñu daal ñoo def lu ñaaw loolu xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi am treize ans na nee ñu dafa jekki-jekki dal di pique crise bi ñu ko yóbboo hôpital gis ne dafa ëmb te ëmb bi am na onze semaine lii da lañ naan njumanoo sant mun a wel bi ñu ko laajee nag ñu la def lii mu ne leen étudiant ba ak footballeur ba ak sama mbokku rappeur ba ñoom daal ñoo ko wiyolee <laughs> mane ne leen de lii mooy senegal yow ab étudiant nga bàyyi say kay fële footballeur ba bàyyi balam fële rappeur ba bàyyi micro bi ngeen ne ci xale réew mi li fi ne kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz